waaw euh, euh, fu mu bokk fu mu bokkul déjà je suis sûr connaissant l'homme El Hadj Ahmed Aïdara am na loo xam ne moom ak ni mu fonkee këru diine surtout du ko nangu ci télévision ça man j'en suis sûr Mansour xam na ko du lu moom loo xamee ni yëg na ko euh, moom Ahmed Aïdara ndax déjà ci këru diine la bokk. mais te noonu la fonkee kilifa diine yëpp ak tarixa yëpp noonu lañ ko bëggee également. du ci teleem lay bàyyi ñuy wax yenn wax yu. Mm-hmm. ndax kàddu yooyu ñaaw na. non seulement kàddu yi ñaaw na fa nga ko jëmalee ñaaw également contexte ba nga ko waxee ak la tax nga wax ko ñaaw mais ca la xam nga lan mooy problème bi. Mm-hmm. c'est un processus. Mm-hmm. processus la pour désacraliser. ce qui était sacré et ce qui reste sacré. pour sénégalais pour ñun ñi en tout cas ci réewum Sénégal mooy suñu kilifa diine yi li tax ma ne processus la neew ma ni moom moo jiite mbir mi waaye président de la république dafa ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ne ne fal nañ la nga ne le tous les ñoom ñëpp ay citoyens ordinaires lañ am na lu ko jiitu woon sax mais am na lu lu commencé ñu dem ba ci biir nga commencé ci réseaux sociaux ñu dem bay saaga kilifa diine Cheikh Mahi Ibrahima Niass mi yàlla suñu borom guddal fanam te gën ko dëgëral mais acte bi mu def c' est un acte boo xam ne au plan mondial dañ ko saluer. benn mais li tax may wax ci processus boobu. mooy moom moo ci moom ci boppam. Hmm. kàddu ci benn video boo xam ne ñëpp partagé nañ ko ñëpp seetaan nañ ko. Hmm. mu ne lii may wax nii xam naa ne su ma ci paree dañ ma saaga. bu ñu demee ba kilifa diine bi. xam ne. réseau sociaux yi nit ñi ñu ngi tàmbali di saaga ay kilifa diine ba moom ci boppam mm-hmm. mu teel a tàggat njabootam comme ñëpp sax ne leen xam naa dañ ma saaga waaye muñ leen leen ko parce que boobu processus bi ma doon wax ñu ngi ci mooy désacraliser ce qui est sacré dans ce pays mm-hmm. mosoo xalaat ci ay jamono suñuy waajur yaa ngi seetaan ñu ngi déglu mm-hmm. ngay am kàddu yooyu yëkkati di ko teg ci kilifa diine même boo leen bokkul tarixa xalaatoo ko woon parce que euh, gis nga kilifa diine yooyu ñu commencé di bëgg euh, nësaxal wala di leen bëgg ñàkkal fayda mm-hmm. attention ñoo tey réew mi de. Ah, ñoo tey réew mi bu ñu demee nag ba gëmantuñ leen. ci kàddu ay nit ñoo xam ne dañuy def di wax du n'importe quoi jëkk ko jëmale suñuy kilifa diini mi commencé di tasaaroo ay ndaw ci réseaux sociaux yi di dem di yenn kàddu yi ñu ko yëkkati ci kilifa diini yi bu commencé di continuer di tasaaroo ba dem ba mm-hmm. ñu ñu désacraliser loolu di lu sacré il faut que l'État central prenne ses responsabilités il faut également que Euh, coolee bari rek waaye am na loo xam ne man boo ko laalee sama pas-pas li Mansour di wax du ma xaar état central de maa koy lijjanti sama bopp. du question violence du mm-hmm. question leneen. Mm-hmm. mais fi nga ko waxee ak na nga ko waxee. am naa sañ-sañ ñëw wan la ni la nga wax ak fa nga ko waxee tegoo ko non seulement ci yoon. Mm-hmm. waaye dinaa la dinaa déconstruire peut-être image boobu nga bëgg a jox suñ kilifa diine. nañ def attention ci wàllu boobu on va vers un chemin. où on emprunte un chemin qui n'est ci lu jëm ci suñu suñu euh, suñu institution la ñu ni ñu waxee présidence ak yooyu. Mhm. suñu kilifa diine yi institution la ci réew mi. Mhm. diviser pour mieux régner comme ni nga ko waxee sànq Birahim Touré. rapidement baat boobu laay utiliser mhm. euh, ñoom euh, les